population Rosso nag li ñuy dund je pense que sama collègue bi wax na ko léegi sama confrère bi moom il est de Rosso comme moi donc euh, bien placé pour comprendre la situation et loolu du def lu dul confirmer ni la cause est commune voilà cause bi dafa commune parce que moom étudiant la il est là euh, mais xam na li xew ci Rosso yëpp donc même en notre absence man par exemple walla ñeneen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mouvement bi di ko doxal jamono ji moom il est capable mu wax leen exactement puisque métit bi képp ku yeewoo Rosso rek dal na ci yow et pour man lu tax mu war a intéresser tout le monde mooy que ni du Rosso Sénégal rek c'est le Sénégal en général boo dëkkee ci yenn gox yi nga xamante ni dafa xaw a sori tuuti da ngay mel ni bokkuloo ci réew mi du ñu la du ñu bàyyi xel say àq ak say yelleef du ñu bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy euh, ñoŋal suñu dund tey Ross Sénégal man su ma ko doon définir Ross Sénégal hôpital bu baax bi ko gën a jege c'est à 100 kilomètres te Ross Sénégal amul sax ambulance pré bi nga xamante ni tey boo amoon malaat cas bi urgent mën nga ko foo yóbbu ab dispensaire la ñu am dispensaire bi tey boo amoon ñaari jigéen yuy wasin benn bi mooy dem benn bi toog di xaar ba kële pare lal ba ñu koy tëral yow sa néeg bi nga xamante ni moom nga bàyyi peut-être sa kër hygiène ba fa nekk moo la koy gënal téeméeri junne yoon tey ku tëdd di malaat nekk ci hôpital ba bu nawetee buy taw il faut mu jóg làqu parce que ndox mi mën na ko fekk foofu mu tëdd maam juste rek pour vous décrire un peu li nga xamante ni moom la ñi euh, ñi dëkk ci zone rural yi di dund parce que je suis sûr du set du Ross Sénégal kese la loolu amee léegi nag li nga xamante ni moo waral événement bii nii nii nii nii mooy tëjum frontière bi frontière bi dañ ko tëj ça fait un an ñu gis ni nag comme ñëpp la ñu wàññi seen ay activité ñu nit warul tax rek ñu ne ah kon dañuy jóg di yuuxu parce que bu boobaa dañuy gore di ñu muñ muñ muñ ba yàlla def mu nekk at état levé euh, état de catastrophe sanitaire bi nga xam ni moom lañ laloon ci réew mi waaye taxul mu ñëw tijji frontière bi te Rosso di zone rurale activité bi fa nekk yëpp daanaka ñi nekk ci milieu informel bi ñoo koy doxal ak économie Rosso ñooñu ñoo ko yor ay boroom gaal ay borom pousse-pousse ay petits commerçants ay restaurateurs restauratrices ak borom yi Jakarta borom taxi clando vous comprenez un peu c'est comme un peu partout le Sénégal noonu la li am feneen li am feneen am ay Dakar ak yeneen région yi moom moo am foofu mais nag dafa am benn secteur boo xam ni moo concentré loolu yépp muy suñu euh, port bi muy frontière bi bu doxul dëkk bi activité yooyu yëpp du dox te yéen xam ngeen ni économie chaîne la ndax fi nga xam ni fa lay nit demee di gagner seen vie pour mën a dem ci ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi def ci euh, dox ci wàllu jaay ñooñu kon du ñu liggéey moo waral tey Rosso man dama ko considérer comme une ville morte loolu nag muñ nañu dox nañu tuuti dem xool yi autorités yi pour ñu saafara ko dara sottiwu ci ñu ne nag léegi on va porter cette fi nga xamante ni nit ñi dinañ ko jot pour ñëpp jéem ci jàpp wax dëgg yàlla su ma naan jàpp sama xel dafa teel a dal ba ma yootoo euh, waa urgence panafricaine rek ñoom it ñu jox ma loxo ndax su ñoom ñoo bokk si ñu ñu encouragé ñu ñëw puisque Sénégal ñun ñëpp xam nañ ni dañu concentré presque lépp Dakar donc médias yi sax pour nga jot leen il faut nga dem ba Dakar ñu invité ma ne ma ñëwal boo ñëwee on va démarcher dinañ dem ci médias yi dinañ organiser conférence de presse on va alerter tout le monde te incha allah marche boobu ngeen di def le 5 avril Euh, deux mille vingt et un muy lundi bii ñu jëm ñoom ci boppam danañ ñëw taxaw suñu wet ni ñu fa war a taxawee. je viens du plateau de teel bi bu bu Sen TV même chose laa fa doon wax moo waral sax retard bi ma ciy jéggaluwaat bu baax mais nag euh, combat wu ñëpp la. combat wu tout sénégalais la parce que même fii à Dakar da ngay gis euh, am ay pàcc yoo xamante ni dañ leen di marginaliser. kenn du leen jox seen àq ak seen yelleef yéen ñu si bëri gis ngeen fan yi réew mi nu mu yëngoo woon te loolu bokk na ci lu ko waral parce que dafa am ay ndaw yu bëri yoo xam ne liggéey dong lañ bëgg sénégalais liggéey rek la bëgg daan dooleem rek la bëgg africain am na joma am na bëgg na te mën na mais problème bi mooy moyens yi ñoo fa amul te moyens yi du jóge fenn fudul ci ñi nga xamante ni ñoo toog ci boppi réew yi te tey c'est dommage buñ koy définiree noonu mais tey ki nga xamante ni day yóotu réew dafay soxla nit soxla ay voix bu soxlaa voix yi du xool nit ki kan la du ci wut nawle walla dara day dem ci population bi fi nga xamante ni fa la gën a bëree nit dem ci village yi dem ci zone rurale yi intéresser tout le monde pour récupérer seen ay voix mais bis bu demee ba yàlla may ko la muy wut dootu leen nawloo day nawloo ñam tollool doole tey damay joxe exemple man je vais pas me retenir Macky Sall est-ce que mës nañ koo gis moom muy collaborer ak Babacar muy falu kenn gisul woon loolu mais tey ñooñu la nawloo te loolu dama bëgg nit ñi di ci bàyyi xel ñun ñu ñuy woowee le petit peuple gars yi bu ñu soxlaa voix rek la ñuy ñëw vers nous et loolu ça doit finir te lu koy jeexal du lenn lu dul population bi surtout la jeunesse ñu jóg taxaw ci xeex ko te xam ni xeex bi du xeex pour sa bopp du xeex pour benn nit wala pour benn flanc mais c'est un combat pour tout un peuple je pense que comme nii jot nañu avancer lu bëri Euh, am na lu bëri su nga ko fi waxee répétition lay doon waaye nag waa Rosso du mouvement Rosso laa dëkk rek mouvement Rosso laa dëkk tur bi daf koy définir képp koo xamante ni da nga bokk rooso da nga dëkk Rosso da nga yeewoo Rosso wala da nga fay évoluer dong wala da nga fa sosoo rek mouvement Rosso laa dëkk daf la defal adhésion avant même mu lay gis comme on appelle tout le monde tout le monde a déjà adhéré foofu noonu ci rooso te fépp feneen fu nit nekk nga gis ni cause bii nii ça mu ngi mu ngi lay laal fenn war nga ñëw nga adhéré si ngeen jàpp si ñu ngi woo média bi nag parce que zone yooyu dafa sore média yi waaye kër média yi nekk fii ñoom ñëpp concentré wu Dakar am nañu en général de missionnaires yu nekk ci région yi nañu bàyyi xel événement boobu ñu ngi leen ciy invité le 5 avril incha allah dinañ tàmbali marché bi 15 heures li sama compa compatriote bii wax sama confrère bi rek laay confirmer marche pacifique lañ woote waaye bii bi mooy ñu ubbil ñu frontière bi activité yi reprendre comme ni mu demee woon bu ñu gisul mu am benn retombée benn retour bu positif incha allahu rabbi lépp lu mu laajaat ci xeex ci xeetu combat pour réussir à avoir gain de cause dañ koy def te bu boobaa comme ñoom respecté wuñu respecté wuñu suñuy droit wala suñuy requête bu boobaa ñu nit am na lu bëri loo xamante ni dootuñu fa nekk di ci soor respect voilà c'est c'est un engagement citoyen te incha allah dañ ciy dem ba jeex parce que suñu réew moo ñu ko dalal euh, juste pour souligner war na ko wax mais Rosso gis ngeen fan yi ñu ngi fay ñëw ñoom ñu nekk ci bopp réew mi di fa def activité mooy pont boobu ñu fay defar Rosso comme ni ma leen wax dafa concentré wu activité am yëpp dafa concentré wu ci frontière bi ak port bi pont bi bis bu ñu ko fay def loolu dañ koy supprimer ñu bu ñu ko supprimer donc dina bëri ñoo xam ni probablement dinañ leen envoyé en chômage te loolu jaaduwul état dafa war chaque fois bu yëkkatee doomu réew fenn fu mu doon daanee dooleem mu wut fu mu ko tegaat wala mu wut lu mu teg ci loxoom ngir mu mën a daanaat dooleem.